ci ba élection yi. mais Yérim man wax Yérim Yérim boo bëggee dégg li may wax. Ah. bu ñuy def rassemblement citoyenneté Sénégal. Ah, ma ñëw ngeen di say caméra. ma ñëw capté jour boobu d'accord dinaa ñëw. waaw j' ai décidé dama koy retransmettre en direct. waaw def mais maax yow dañuy toogaat def discours deux heures de temps boo. xam ne waaw mais maax yow dañuy toogaat. Ah, li ma bëgg a wax yépp ci discours boobu laa koy waxee. d'accord wax ni ma gisee réew mi wax li ma xalaat wax li may xaar ci candidat yi. waa bis bi may tànn sama candidat. d'accord parce que man damay am candidat. da ngay tànn candidat damay am candidat. ah Yérim boobaa la neutralité. non déedéet. da ngay tànn candidat. New York Times bu élection Amérique day tànn. Ah, candidat on New York Times defal nang defal nang defal nang defal nang New York Times. bu bu bu bu bu bu élection day tànn candidat lu tànn. waaw journal Le Monde. France daf koy assumer. Ah, xaaral ma jox la exemple man damay assumé moo tax. mais dañ koy assumé. ci seen ligne éditoriale sax. xam man nu may assumé des journaux de gauche y a des journaux de droite. man nu may ñoom dañoo assumé. voilà xam man nu may assumé ah. man. damay def discours de deux heures de temps wax man li ma gis ci réew mi ak li ma xalaat ni képp ku bëgg a yóbbu réew mi lii nga war a def boo ko defee ba pare dinaa gisante candidat waxtaan ak ñoom. ci seeni projet xool seeni projet xool fi ñu bëgg a jëmale réew mi ki ma jàpp ni kii boo gën a méngoog ñun li ñu bëgg ñu taxaw voteel ko ñun on n'est pas des hypocrites maanaam di màtt ci kaw di ëf ci suuf comme Sénégalais yi ñuy def nii double bi xam la ngay wax fii di non on fait pas ça ñun on assume au grand jour. Hmm. waaw dañuy décliner suñu programme parce que ay citoyens lañu. te dañoo bëgg bu ñu jógee tànn candidat bi méngoo ak seen. aspiration voilà aspiration bu boobaa doo toogate ci plateau yi doo ne analyste Euh, même bu ma defee loolu xaaral ma wax la benn affaire nga xam ko mooy mën a man mënumaa far mën on peut pas me ranger dans case même ki may ki may nara a soutenir suñu mouvement dañ koy soutenir parce que mënuñu taxaw yenn neutralité pour man lâcheté la réew mi taxaw ñu nekk ci élection bu amee importance bi nga xam ni ki nga xam ni moom la ñuy fal moo nar a suñu petrole ak suñu gaz moo ñu nar a traverser période bi gën a difficile bi gën a dangereux depuis bi Sénégal amee ba léegi nga taxaw naan da ngaa nëtt loolu yabaat yab nit ñi la damay taxaw clairement nii ñi ma waxal ñëpp ñi ma gis ñëpp kii yee ma ci gëndoo ñun citoyen Sénégal kii la ñuy voté n'importe quoi man dama ko wax de man je dis ce que je pense